Dakar wala sax ñeneen sénégalais yi nga xamante ni dañuy topp ci 99 point 3 fële ca Tamba foofu sax ci Tamba nañuy dem euh, nuyu Boubacar euh, Diop Boubacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Euh, Tamba Taar maa ngi lay fay. yaa ñu toogal foofu la ca Tamba Tamba jamono ji waxtu ñuy àddu sax bu ma juumul suspension de séance moo amoon ci procès bi nga xamante ne moo doon dox ci mbirum Bougane boobule ñu jàppoon pour outrage entre autres pour outrage agent rébellion ki yu ni mel. waaw euh, loolu moo xew fii tey ci tribunal de grande instance bu Tambacounda Pape Matar Diallo loolu nga wax sax daanaka euh, damay taxawee ci noonu wàllu outrage boobu boobule nga xamante ni moom lañ doon toppee kii di euh, Bougane Gueye Dany jàpp leen ni daal li nga xamante ni moom moo tukkee ci plaidoirie yi njëkk jàll fii ni nii moo di daal ñett ñi nga xamante ni moo di gendarme yi ñu woowoon à la barre ñaar ñi ñoom dañoo déchargé kii di Bougane Gueye Dany ci wàll boobu boobule. loolu nag euh, moom Bougane Gueye Dany euh, mi nga xamante ni gis nañ ko ci tribunal bi daal benn Bougane Gueye Dany bu dal bu teey tontu ci laaj yi ko tribinal bi laaj yëpp moom la ñu gis ci Euh, ci tribunal bu Tamba euh, tey jii <laughs> moom Bougane Gueye ni nag jàpp nañu daal moom ay avocat am rawatina ki nga xam ne moo di maître El Hadj Diouf mi yor seen kàddu mhm. moom daal jàpp nañu ni mu ngi am njort bu rafet ni moom client am tey bu procès bi jeexee dana ñibbi këram ndax kat jàpp na ni moom maître El Hadj Diouf li nga xamante ni moom lañ doon toppee Bougane lu ci ëpp daal daanaka faxas nañ ko euh, tegee ko nee moom la maître El Hadj xam xamle Euh, jëme ko euh, ci ki nga xamante ni moo di tedd de liste euh, kii di coalition bi di sàmm sa kàddu Pape Matar Diallo. <laughs> beneen mbir boo xamante ni aussi ñu ngi koy dégg foofu le mi procès bi dañ ko def à huis clos nanguwuñu public bi dugg loolu dëgg la. waaw waaw projet bi dañ ko def à huis clos boo ko déggee am na sax jafe-jafe bu bëri bu mu indi woon tey ci suba am na xët-xët ju mu fi indi woon parce que dañoo tax teewoon taskatu xibaar yi ci ginnaaw barrière yi ne kenn du fi kenn bu fi jaar loolu nag taxoon ba euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, ki nga xamante ni taskatu xibaar yi daal di waxtaan ak euh, ñi nga xamante ni ñoo di kilifa way takk deru kaaraange yi ñu daal di trouver benn consensus maanaam waxtaan ñun taskatu xibaar yi ne fii ci nga xamante ni moom moo di diwaanu Tamba ñi daal di fexe nuñ déggoo ba nga xam ni daal dana am fukk ba fukk ak ñaar ci ñun ñoo xam ne danañ leen may ñu dugg Euh, su ko defee ñoom ñu mun a séddoo xibaar yi ak seen naatangoo yi ci nekk ci biti mais daal bu weesoo loolu mhm. mën nañ laa wax ni daal daanaka lu ko faree euh, daanaka cinq cent mètres de part et d'autre mhm. ci quatre point cardinaux yi yëpp amul fenn foo xamante ni nit mën na fa teg tànkam wa patte blanche comme on dit Euh, leneen li aussi mu nekkoon ay xuppa ki ay euh, tëkkante si euh, diggante yenn yi di ay militant opposition bi ak ñenn ñoo xamante ni dañ doon wax nii dara du fa xew est-ce que tey jii foofu le nemmeeku nañ fa voilà ay scène de violence ak ay provocation wala sax. non non non pas du tout Pape Matar Pape Matar wax dëgg yàlla dispositif bii nga xamante ni moom lañ jël fii ci li tribinal bi jafe-jafe moom. bu fi amee dina doon luñ jaaxal lool lool lool parce que euh, comme ni ma la ko waxee léegi léegi il faut pour nga franchir barrière y a un impressionnant dispositif de sécurité boo xam ne moom moo fi nekk donc on ne peut pas penser à ce genre de choses là suñ euh, toll euh, bu bàyyi la nag gars yi rek bu ñu amul question. ma libéré la nga xoolal su ma la mënee su ma la mënee dooleel dara dama lay wax ni daal am na benn jardin public boo xamante ni mu ngi nekk euh, derrière euh, la préfecture ñu koy ñu fa defoon benn monument ba ba Tamba di ko woowee monument à nos morts foofu mhm. la ñu maanaam les les les les militants de Gëm sa bopp ak lenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa euh, aar ci nu mu tuddati sàmm sa kàddu loolu daal laa xam ne ñoom foofu ñu toog li leen wër mhm. am yaakaaruma ni nit dina gàtt xel ba ne da leen di song si wala ñoom ñu jóge fa dem di songiwaat ñeneen euh, Pape Matar Diallo. d'accord Boubacar ma bàyyi la ak Ayoba Faye mi ngi mel am na laaj mu la bëgg laaj. waaw Boubacar euh, noonu def maa ngi lay siyaare waaw Ayoba waaw waaw maa ngi siyaare bu wér. waaw ah, naka naka naka foofu. waaw waaw ñu ngi xët-xët yi rek waaw loolu jaajëf jaajëf liggéey bi liggéey bi rafet na euh, dama dégg ci say kàddu nga ni euh, ci gendarme yi nga xamante ni ñoom ñoo doon ñoom ñoo ñëwoon ci baar bi en guise de témoin dafa am ke ñaar ñu mhm. ñaar ñoo xamante ni dañ ci décharge mhm. ki nga xamante ni mooy euh, Bougane Gueye Dany soo mënee waaw loolu loolu moom luñ koy dañ koy confirmer fii soo mënee expliquer bu baax nan lañ ko nan lañ ko déchargé parce que Bougane Gueye Dany dañ ko poursuivre pour refus d'obtempérer outrage à agent ak rébellion ñetti ñetti ñetti ñetti kii yooyu ñetti chef d'accusation outrage outrage agent bi. waaw outrage agent bi moom moom la ñu wax ni. Hmm. ñaari agent yi nga xam ne boo maanaam boo xoolee vidéo yi ñaari ñu ko njëkk a téye ci première ci ci première vidéo bi. Hmm. ñu ñoo wax ni que ñoom déchargé nañ ko maanaam ñoom li ñu wax ni ñoom dafa xëccanteeg ñoom loolu amul. Hmm. waaw loolu la ñu teggi waaw loolu la ñu teggi léegi nag ki nga xamante ni moom mooy seen kilifa mhm. di commandant bi kooku daal moom la ñu wax ni moom suñu jàppoon ñu ko jàpp ba tey loolu nag ñu ngi ko nangoo ci suñu xibaar yi nga xam ne ñu nekkoon ci biir salle bi ñu génnee ci pause bi lañ ñu baaxee xibaar yooyu mhm. mooy le capitaine mooy le capitaine Ndoye waaw waaw d'accord ma bàyyi la ak Georges Nesta Diop Boubacar waaw soxna si ah, a jub. a a neex sant nag. <laughs> waaw gis nga de. ah non à part à part Pape Matar sama nijaay. ah wallaay wallaay wallaay. ah, ah daa loolu de su ma. ndax mu mais xam nga sant Diop nag moom dafa neex. dégg nga ko sax Dakar mais yombul nag. Dakar sax Jal Diop la sant. waaw mais mais loo ci gis gars xam nga dañ ko doon wax Dakar Jal Diop. Hmm. jamono jooju la affaire yëpp yomboon ndax bañ ko nee Ndakaaru Njaay la lépp jafe. buñ ko waxee Ndakaar buñ ko waxee buñ santalee Njaay nag ba léegi bañ ko santalee Njaay la lépp jafe. maa la wax loolu mais jamono yi ñu naan na. maa la wax loolu Dakar comme Paris <laughs> Dakar comme Paris léegi Boubacar. oui waaw ne procès bi c'était à huis clos non. huis clos mooy maanaam kenn du dugg. waaw loolu la ñu waxoon. voilà léegi euh, leaders yi parce que am na ay leaders euh, dégg na ay tur ay leaders yu bëri nga xam ne dañ jóge fii Dakar. waaw am na leader yu nekk ci biir. parce que voilà ñoom Barthélémy ñoom Barthélémy Diaz ñoom. Euh, voilà Thierno Alassane Sall ñoom euh, Pape Djibril Fall. Euh, waaw Thierno Bocoum et cetera en tout cas gars yi ñoo ñoo nekk. seen nañ ci seen nañ ci Moussa seen nañ ci Massali. waaw seen nañ ci Abdou Mbow. maître Sidiki Kaba duggoon na mais moom ñu yeewee ko na léegi ba. waaw parce que même même maire Kolda bi Sidiki Kaba ancien ministre de la justice dégg naa turam foofu mu ngi si biir salle bi. waaw. non non moom génn na sànq ba dem maire Tamba plutôt. président waaw moom waaw ñoom ñëpp ñu ngi conseil départemental voilà. waaw maire non président conseil départemental euh, Mamadou Kassé waaw. mais mais Sidiki Kaba fa nekk euh, président conseil départemental. non président conseil départemental mais Mamadou Kassé. Mamadou Kassé actuellement actuellement waaw mais Sidiki Kaba il était responsable politique de de Tamba. responsable politique à Tamba il est allé le voir hier à la prison dem na ko seeti mhm. dem na ko seeti à la prison euh, peut-être bon nee na nag comme ni ko moom ak kase ni ko jëfee mooy Tamba ku fi dugg ak noo fi mun a duggee moo xam yoona la fi dugal wala leneen ñoom en tant que fils de Tamba dañu war a taw ci dalal la ak it dalal sa xel wala su fekkee da nga nekk ci xët-xët tamit mu gunge la ñoom poli noonu lañ ko expliquer jaajëf <laughs> Pape Sané ah man kay comme moom ay Diop kii Diallo la fiy faral kay man jaruma koy poser question. Ah. <laughs> <laughs> alors Boubacar. <laughs> non Pape maa ngay déglu non Pape Sané non yow yow yow yow suñu garaane yow moom. Uh-huh. yow suñu njaati dégg yow loolu def baax na mais mais mais bu Diop ak Diallo moom bu ko jéem a xëccoo bàyyi ko ñoom rek. d' naa cee d' accord naa ceeg yow. d' accord Boubacar mhm. léegi ah. waaw euh, waaw xam naa ni léegi ñu reprendre seen euh, suspension de séance boobule. waaw waaw lu ci lu ci tukkee rek euh, li xibaar lu bees rek nga euh, baaxee ñu ko laata ñuy yëg ci jotaay bi. incha allah incha allah amul benn problème lu ci am rek dinaa def euh, dinaa def bu fekkee am na lu ci si léegi ngeen di pare. su fekkee am na lu fi tukkee rek dinaa def sëñ Aliou. Mhm. su ko defee moom mu mu mu jàll mu jàllale ma incha allah. d' accord d' accord di ko jaajëfal bu baax a baax moom Boubacar euh, Diop nekk suñu correspondant fële ca Tamba Tamba mën ngeen ñu suivre ci quatre vingt dix neuf point trois alors euh, Ayoba yaa ko dégg ak ñun euh, Bougane ñu ngi ko doon toppee trois chefs d' mi ngi mel ni benn bi nga xamante ni procureur ko dolli woon mi outrage agent am na ñaari agent yoo xamante ni dañuy weddi boobu li ma waaw tu sais xam nga euh, avocat yi euh, ñoo convoqué témoins yi pour interroger leen te avocat xam nga ñoom euh, suñuy layal ki nga xamante ni mooy seen client dañuy wut ay ay arguments yoo xamante ni wala ay accès de défense yoo xamante ni bu ñu fa coincé témoin bi dana dana leen wax li nga xamante ni moom la ñu bëgg dégg wala moom la ñu bëgg opinion bi dégg bugaan dañ koy toppee refus d'obtempérer def naa boobu sax mooy chef d'accusation bi nga xamante ni moom moo moom moo gën a fës chef d'accusation yi mhm. yeneen chef ñaari chef d'accusation yi muy outrage à agent mhm. ak rébellion rébellion oui euh, outrage à agent ak rébellion bi euh, maanaam dañ ko ni dañ buñ ko buñ ko jàppee dafa dafa xëccoonteeg ak ñoom mhm. euh, ba pare teg ci ay wax ay kàddu yoo xamante ni dafa kaddu yi dafa dafa ñagas looloo tax xam naa ñu convoqué ñaari gendarme yi nga xamante ni ñoom ñoo jàppante woon ak Bougane leen devant leen laaj ci lu fi d'obtempérer bi dañ leen di laaj ci li nga xamante na wala wax leen ko ñoom ñu dégg ko wala déet hmm. te comme il euh, nu mu tuddati dañuy dañuy témoigner sous serment euh, ils sont obligés de dire euh, la vérité moo tax bu ñu waxee ni tey jii Bougane yëkkatiwul benn kàddu gu ñagas teg ko suñu der bi léegi nag avocat dañ koy amplifier dañ ne ah gendarme yi blanchir nañ Bougane hmm. alors que c'est pas c'est pas ça hmm. les poursuivis aussi bien pour euh, outrage à agent mhm. rébellion que refus d'obtempérer refus d'obtempérer mooy dañ ko ni bul jàll ci euh, barrage bi jëm fële mu ni moom dana jàll dem si moom loolu mooy refus d'obtempérer bi jox la ndigal nga bañ léegi nag voilà léegi nag boobu nag ci moom euh, je pense que ci la ñuy débattre li ëpp en tout cas ci la procureur bi bu procureur bi ñëwee di def réquisition réquisitoire ci lay basé wu pour wax ñu juger ndax am na refus d'obtempérer ou pas parce que moom Bougane li mu wax tey devant devant le juge mooy waxul benn yoon ni euh, te euh, nu mu tuddati xëccawul benn yoon bi ko euh, capitaine bi ne bul bul jàll daf ko ni mm. comme mun convoi bi munul jàll damay dox dem Tamba loolu yoon. dem Bakel bi ko bi ko bi kii bi bi ko capitaine bi ne munoo dox dem Tamba mu ne comme nag munoo ma bàyyi ma dox dem Tamba euh, maa euh, maa ngi lay maa ngi lay wax pour nga arrêté ma. Hmm. pour nga pour nga pour nga pour teg ma loxo nee moom moo wax. moom ci boppam moo wax capitaine bi nii pour mu pour mu mu jàpp ko léegi na capitaine bi comme ni ko comme ni ko comme yow loolu nga bëgg man dinaa la dinaa la dinaa la dinaa la teg loxo après nag ci la wax ni euh, durant trois minutes maanaam ñetti simili yoo xamante ni. ñooñu nga xamante ni ñooy gendarme yi dañ ko doon brutaliser ci seen ci seen ci seen pick-up bi euh, et li nga xamante ni moo ci xew après xew ci donc euh, en résumé audience bi yenn saay euh, nit ñi dañuy jël yenn titres yi fësal ko ni gendarme yi par exemple gis naa ko ci ay sites yu bëri ñu ni ñaari gendarme yi dañoo blanchir Bougane alors que demeewul noonu dañoo wax ni Bougane li nga xamante nañ ko koy toppee muy outrage à agent mhm. ak rébellion gendarme yi nee nañ dégguñu benn yoon mu yëkkatee ay kàddu yu ñegas teg leen ko te tamit mhm. xëccoowul ak ñoom mhm. alors euh, euh, Georges même euh, laaj bi la euh, tey jii ñu toppee la ñetti chef d'accusation benn bi di outrage à agent ñaar ci gendarme yi nga xamante ni ay témoins à charge la c'est aussi bien de le préciser ñëw ni outrage